mbëggeel ci réew mi ne am na nañ ci loxo ak tànk moo tax ma jël engagement bi yow nag beneen affaire la su ma demee ba dox ba mën a def lii yàlla bi yoon ni kon hijra naa fii waaye léegi la xaara yaa ngi may tës ci mm, euh, euh, maddiyan wa maanawiyan kon nag ngërëm gi dama ko jaarale ci yow mu jëm ci man mi pas dama jóge ko nekk bàyyi euh, euh, euh, ba ma demee bàyyi ne daan leen yóbbu ngeen jàngi ñu fi tàtte ma ñëw ci kaay na ko dem ci paas ci kaay na ma kooku mu ne ma dangeen ngeen dem keroog bañ demee ba sot yi sotti mu dem xaaral bind ko leetal leetal boobu yaa ko jàngal wax ci wax yu wax ju rëy sama diggante ak moom bàyyi moom bind na ma xaaral ñeenti leetal loolu xam nga ko tas jéem ah bon nag ngërëmaale bi maa ngi ko jaarale ci yow jëm ci mag ñooñu. parti bi de moom moo ko Sénégal ko moom bépp doomi Sénégal boo xam ne gëm nga ne mën ngaa liggéey soo ñëwee parti bi sa parti la du parti bu sant Diallo wala mu dëkk Medina rek yem ci lu mu dëkk Kaolack déedéet parti Sénégal la wax bi jarul guddal loolu la amal lu ma ciy wax sëriñ bi li sa sa wax la maa ngi gërëm ñëpp. di gër waa Medina alhamdulilah wa salaatu wa salaam ala rasulillah ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sahaaba yi ak ak kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak képp ku leen topp képp képp ñu ñaan yàlla mu sotti ay gërëmam ci pays Mawlana Cheikh Ahmad Tidiane radiallahu anhu batti ko ci pays Mawlana Cheikh Ibrahim radiallahu anhu salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ah Cheikh Ibrahim Fall nga ñu ngi lay nuyu nuyoo bu kawe ci place bi nga xam ne tey yaa ngi ko sos ngir ay na yoo xam ne Sénégal yëpp la yàlla ñu ngi gërëm yàlla ci loolu di ko sant di la gërëm yooyu itam ci ba ñu mayee bunt ba ñu mën a ñëw teew fii tey ngir ndokkeel la ak wan àddina bi yëpp ne boo nekkee ci mbir danañ la ci jàppale ci liñ man lépp loolu rek lay tegtale tànk yi loolu rek lay tegtale ndax dañuy wax ne bët mën naa xool lu ko neexut nopp mën naa dégg lu ko neexut bakkan tam mën naa fóon lu ko neexut waaye nag tànk fu mu dem dafa neex boromam moo tax mu dem fa tànk yi ñëw nii yëpp du tànk caaxaan du tànk yoo xam ne itam ci ngelaw la du tànk yoo xam ne itam yàllaa ko dogaloon nii rek ñu dox ko ñëw te amul maanaa déedéet ku ci nekk rek sa ñëw bi am na maanaa am na ndollal lu muy def ci place bi am na ndollal lu muy def ci yow. li ngay ut itam ci Sénégal su fekkee Sénégal yëpp la ñuy itam waa mi dina danañ ci am cër boo xam ne mooy gën a law cër bu nekk ndax xarabu awla ci gën a jege toujours yàlla mën na koo may cër boo xam ne ki gën a sori du ko am. moo tax duñ mën lu may jàppale la ci ñaan jàppale la itam ci xis ak ci maanaa ci lépp loo xam ne jàpp nañ ne mën naa doxal parti bi. yal na yàlla defee ni nga ko bëggee. yàlla defee ko ni nga ko bëggee. yal yàlla defee ko ni nga ko bëggee. Ah, sa faju aajo mooy suñ faju ajo ñu yëpp. dëgg ah, na yàlla def loolu. Ah, alhamdulilah waaw yàlla yokk la ba nga xamal ko sa bopp. te yàlla bu mu am benn gàllankoor. bu ko mën a gàllankoor. yàlla na dox rek jëm ca kanam. lu egg fi nga xam ne foofu nga bugg fu diine ji foofu nga bugg itam pour dëkk bi foofu nga bugg itam pour mbokk yi nga xam ne ñoom nga nekkat fii gërëm nag ñu teew yëpp waaw Seydi Mouhamadul Arabi mu ngi nii teew ay soxla la bàyyi ñëw Cheikh Mouhamadul mu ngi nii teew ay soxla la bàyyi ñëw Cheikh Ousmane Ali Cissé mu ngi nii teew ak mbooleem ñi nga xam ne ñëw nañ ñëpp ay soxla lañ bàyyi ñëw teew fii ngir barkeelal la classe bi ak itam wan la seen éena ci yow yal yàlla dëggal éena yi duñ def lu may ñaan nit ñi ku nekk jàng benn fatiha ak ñetti salaatul fatiha yàlla defal la li nga bëgg ci place bi ak li nga bëgg ci parti bi